jërë ngeen jëf ñaari kaa yi def kaa ñu bari di kaabu Karim Wade kaabu Khalifa Sall ñoo ngay bëgg a neex ca seeni borom ubbi l'observateur yéen kaay bi mi ngi ñuy wax ne lu jëm ci amnistie bu Karim Wade ak bu Khalifa Ababacar Sall ministre de la justice liggéey na ca ba noppi wax na fa ñu war a jaar ngir mën leen a amnistie léegi nag président de la république moom la ñu cey déglu ngir Karim ak Khalifa mën a jotaat ci seeni droit civil mën a bokk ci ji moo di kaa bi jëm ci procès bu Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko bi populi mi ngi ñuy wax ci xëtamu njëkk ne procès ba mujjul am ndax Ousmane Sonko ñëwul démbu tribunal ay awakaam nee nañu Sonko jotul citation bi koy wane dafa war a wuy ji yoon moo tax la ba dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom benn ci weeru février Walf Quotidien nañu Ousmane Sonko koy ñëpp la dribblé ndax jamono juñ ko woloo tribunal toog di ko xaar moom ma nga woon ca foire de l'Élevage bay am ca CICES le témoin ne ko boole ko kit gàddu balam réew mi fu laalul justice bi li ñu koy toppee moom Ousmane Sonko tribune nee nañu am na ci loo xam ne bu ko ca yoon daanee du baax ci moom mu di tuumay faux et de faux coordonnateur national bu COJER di Moussa Sow ne yu ci xët mu njëkk la mandat kuy wër ki dàq wax waxeet koo xam ne wax génnaat ci ak naan ci ndox mi la yemale boo koy wër ba yam ci Ousmane Sonko jëlal yóbbu wax lu dul dëgg ak wax di weddi Moussa Sow nee na Ousmane Sonko moo ci champion ndawi ci COSER yéenekaay bi nee nañu def nañu démb ab assemblée générale ngir waajal ko àndoon ci nag ak jeunes yu département bu Pikine yu Géejawaay yu Kër Masaar ak Rufisque ñu romb Rufisque jàll ba jam ñaajo Soleil national nee nañu démb lañ fa ubbi am ndaje muñ doon waxtaane nees mën a def ba am xaalis bu ñu mën a financer infrastructure yi Afrique yi Le Quotidien nañu ca ndaje moomee fa la Macky Sall dakkalee coow li am fan yi ci ndax train express jant bi lu baax lu ñu gis xëpp ci suuf bés bi le jour bi ni ci njëkk ne Macky dakkal na coow li am ci train express régional bi ba noppit leeral ne saxaar gi Sénégal ko moom dafa tànn entreprise bu xereñ ci wàllu di ci liggéey ak moom la si nañu ñiy xala projet bu terre bi Macky Sall delloosi na leen sur terre na leen moom Macky a premier ministre am di Amadou Ba direct ci news mi ngi ñuy xibaar ne ma nga woon démb ca Grand Théâtre bagaas njiital port autonome bu ndakaaru rafetlu na liggéey ba muy def ca port ci ñeenti weer yamu fa defagum wax na ne ñaari junniy jeunes yi ñuy yóbbu ca port ngir ñu fay liggéey dafay dugg bu baax baax ci programme bii di xëyu ndaw ñi ministre bi ñu dénk ndaw ñi di ministre de la jeunesse ministre du travail ak bay di añ mi jiite conseil national du patronat yéenekaay bi nee nañu ñoo nga woon ca ndajama naka noonu it Youssou ma fa yëkkati lu mat juróomi xeex gi muy xeex corruption Mor Gassama dib économiste jàngalekat gëstukat yi université Cheikh Anta bu Ndakaaru di ko dëggal ci xët mu njëkk Sud Quotidien nee na bay bayal geeg nit wàcc yoon ñu bañ ko tegaat ci yoon yooyee ñooy yii doole xeexum corruption ci réew mi li fekk yooyu jógu fi corruption jóge ci réew mi du yomb li yomb te gëm mi ngi ci xët mu di imam bi réeroon yéenekaay bi nee nañu feeñ na waaye ba muy feeñ booba fekk résultat autopsie di wax ca la ñuy soog a mën amee takk bu wér ci yenn anam la imaam Ceerno Tijaan Taal faato waaye saa si li feeñegom ci enquête bi yéenekaay bi nee nañu moo di amul benn trace de violence maanaam dara luy niroone Ceerno Tijaan Taal dañu ko fitnaal balaa muy faatu CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Ecobank Malaysia Umo Soumari.com savon de Marseille Alfi ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi yéen jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Media xibaar yi fii lañ ciy yem fàttali li ci gënoon a fës nguur gi fas yéene defar gën gaaneew fukki bassin de rétention fii leeg nawet bi di ñëwaat juróom-ñeen fukk euh, juróom-ñeen fukk ak juróomi milliards la autorité yi génnee loole nag ngir xeex mbënn mi ca yëmbal ak it ca Kër Massar wàllu wér gi yaram ñi amee bourse de sécurité familiale ak carte d'égalité de chance ngir mën a faju ci mutuelle de santé yi ñu ngay yuuxu rawatina ña nekkee ca Kaffrine kuréel gi ngàlloo couverture maladie universelle andi na ci ay leeral dégg ngeen ci Ali Fall mi yore jokkoo bi euh, magalu poroxaan bu ren bi jeex na démb la woon cérémonie officielle bi ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome mi jiite woon délégation gouvernement bi ba mu yeggee ca la yeggee xalif bi euh, yóbbalu njiitu réew mi maanaam sakku ci moom ay ñaan ngir jàmmi réew mi tàggat yaram àndoon nañ ceeg Cheikh Tidiane Diagne xibaari aaday Fama Dione jeexalee yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye mu doon noon antenne bi élèves yi doon yuuxu ne dañuy dem grève ndax dañoo bëgg ñu xoolaat seeni programme ndax ne programme bi dafa diis ci ñoom te ñaare yenn saay liñ leen di jàngal ci programme bi boo demee ba ca biir du doon loo xamante ni amal na leen njëriñ loolee nag ki nga xamante ni moo di Mamadou Moustapha Diagne di directeur euh, di ki ñu dénk wàllum formation ak it jokkoo ca ministère de léducation tontu na leen dafa njort ne élèves yi bu ñu demee ba sañ a grève ndax ñu xoolaat seen programme du ñàkk am na ay professeur yu leen di ruux ngir loolee euh, ñu mun ko euh, ñu mun ko ñu mun ko def euh, muy lu muy ñaawlu nag Mamadou Moustapha Diagne ñu teewlu ko ak Awa mu yi ngi yëkkati yi le kàddu ci conférence bu ñu doon amal ngir tàggat jeune reporter yi démb la woon li ñu wax sax mooy curricula waaye nag booy changé curricula da ngay changé curricula nga soppi li ñuy wax programme yi di nga soppi li ñuy wax euh, manuel yi laal ci formation jàngalekat donc nekkul lu simple processus bu yàgg la ba pare nag acteur yu ko séq yi muy ministère yi muy collectivité territoriale euh, muy parents d'élèves PTF ak organisation de la société civile élèves ñëpp nga lañ ci boole donc nekkul loo xam ne da ngay jóg rek mel ni ab tailleur nga daggal ba fi wala wàññil ma fi donc dafa nekk lu lu sérieux lu ñu war a jàngat ndax dafa am lu bëri luy luy changé dafa am aussi bu war a commencé nañ ko parce que ak euh, IGF teg nañ le dispositif bi nga xam ne moo ko war donc léegi d'ici fin d'année incha allah daañ ci daañ ci sori mais wax aussi ni ku leen wax ni jànguñu euh, lan la ñuy wax jànguñu Sénégal jànguñu Afrique xam nga loolu yanul maanaa yéen ñi jàng ñëpp xam ngeen ni jàngeen géographie Sénégal jàngeen histoire Sénégal histoire Afrique donc du wax du lu wax wax ju yoon a maanaam maintenant nag am na ñoo xam ne comme léegi mënuñoo gréeloo jàngalekat yi ndax jàngalekat yi seen salaire yokk na dañ ko bëgg a jaar ci élèves yi loolu nag lañ dul nangu dañ dul nangu di manipuler xale yi nañ bàyyi xale yi tout tranquille ku am sa sa débat nga jëm ministère dañu en tant que kii nga posé ñu ko pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. atum bi ñu bëri jàpp ne jax na lool ci langum politique bi ku ci nekk a ngi xëccoo. xam ngeen li ko waral mu di élection présidentielle gi ñuy waajal ci atum 2024 ndaw ya euh, bootu ci alliance pour la république di APR te féete ci euh, ñeenti département yi nekk ci banlieue bu Dakar ñoom itam ñu ngi mobiliser euh, amal nañ ci sax ab taskatu xibaar yi ratewul benn yoon ku jëpp bi Salamata Ousmane Diallo. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu daal di génn Kër Massar daal di dajale ak mbooloo bu takku ci jamono bi ndaw APR yu fare ci ñeenti département yu banlieue bi ñoom ñoo bëgg a wane seen bopp ci ak mbooloo bu takku niki dimanche juróomi fan ci weeru février ca terrain CFA bu Pikine naka noone sax nag ñuy xamle ni li ni mel nekkul ak tontu bu ñuy jël di ko jëmalee ci rassemblement bi nga xam ni partisan yu Ousmane Sonko amaloon nañu ko musa Sow njiital ko COJER national. mbir mi du réponse ñun suñu plan d'action la ñuy ñun ay Sonko yooyu détail la ci ñun nañ aussi dinañ fi jógee amaal amalaat yeneen mobilisation ci biir réew mi yëpp ñu continuer suñu plan d'action fii rek à Pikine terrain CFA bi ñun jeunes yi rek dinañ mobiliser lu toll ci dix mille jeunes jàpp nañ ne sénégalais yëpp pare nañu pour que effectivement ñu joxaat beneen mandat ki nga xamante ne mooy président Macky Sall. Moussa Sow ba tey jilee di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko tek ci ndodd ku jéggi. N'oubliez pas que ñii baaxuñu àll baaxuñu kër ga baaxuñu ci Sénégal mës a jox suñu réew président ci liggéey la nekk bokkul ak opposant yi nga xamante ne heure bu ñu génnee suñu wayjur yi dar seen gémmiñ ci dañuy saaga dañuy sos di fen di rambaaj ngir dugal ñi nga xamante ne peut-être amuñu toutes les informations ci seeni wax. lu ëpp ci fukki junni ndaw la ñuy daal di xaar ni ki dibeer juróomi fan ci weeru fervier ca terrain bu CFA Pikine ndaw APRS yi nag la ñu bëgg mooy daal di jàkkaarloo ak opposition bi nga xamante ne si nii dañu jàpp ni dara taxu leen jóg du dul yàq. ak taal réew mi Salamata Ousmane Diallo Pikine ngir rajo Futurs Médias. fukk ak ñeenti simili moo bootu ci juróom euh, ñetti waxtu ñu wéy ci xibaar yi wax ci wàllum diine. magalu poroxaan bu ren bi jeex na démb la woon cérémonie officielle bi ministre de l'intérieur ki yore kaaraange biir réew mi euh, mi jiite woon délégation gouvernement bi nag ba mu yeggee sàkku na ci xalif général de Mourides ay ñaan ngir jàmmi réew mi loole mu di message boo xamante ni njiiti réew mi moo ko ko jox mu yeggee ko xalif bi Fatou Mbow ànd ak bu takku ci gouvernement bi ngir teewee ci lii di cérémonie officielle bu màggal poroxaan jëwriñ bu ñu dénk wàllum biir réew daal di indi bataaxalu njiitu réew bi Macky Sall Antoine Félix Diome lii la daldi xamle ci kanamu kilifa diine yi. ñëw nañ ci bis bi ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ni ñu nangeen ànd ak mbooleemi service gouvernement bi taxawu ko ba lépp mucc ayib moo tax ci wàllu courant yokk nañ ko wàllu ndox yokk nañ ko wàllu hygiène ak assainissement lépp lu ñu ci waroon taxawee def nañ ko ci jot li yóbbante son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam na ni naka jekk ma nga ca waaye di ñaan Serigne Mountakha gën a ñaan ci dëkk bi yàlla gën fi dolli sutura gën fi dolli xéewal gën fi dolli jàmm représentant wu xalif général des Mourides di Serigne Fallou Mbacké ibnu Serigne Bassirou daal dinay rafetlu bi le teewaay ndax si doole di sàkku ñu daal di gën a jëmmal lii di jàmm. boole ngeen seen xel ak seen xol ak seen jëmm ak seen ñox seen la ngeen am def ko ci bis bi. ngeen bëgg rek traité kon li jël ngeen sant leen ñaan gën a jëm bu baax a baax te xam nañ seen taxa gis na seen bi gis na ko mu ngeen ci sant bu baax a baax. daan boobu seen kilifa gën a yónni ba ñoom ñu teew. ba ci ñi ci gën di ndaw ba ci gone yi nga xam ñoom lañu takka ñu der yi defar di ñu màggalum poroxaan ñu daal di ko amal niki tey yemook ñaari fan ci weeru février bi bi ne officielle nag daal dinay dajale autorité étatique yi kilifa diine yi ak lii di kilifa aada yi Mbow poroxaan. rajo Futur Media. ñaan yàlla ñaan yi ñu ñaan ci màggalu poroxaan bi yëpp yàlla lu ñu ko ngir jàmmi eh, réew mi delloo jukkalit eh, askanu murit yépp eh, ñu tey ji ci ajuma ji la ñuy dalloo jumaaw Cerno Mouhamadou Seydi Ba te mu nekk fii ci bopp. chantier boobu nga xamante ni ñeen fukki at a ngi nii ñu koy defar euh, liggéey bi mu ngi taaw bëli woon euh, ci atum 1982 euh, la tax lëggéey ba yegg nag bokk na ci financement wu nguur gi mu jëm ci taxawu gi mu taxawu ki këru këru diine yi ci Sénégal fukki simili ak juróom-benn gannaaw juróom-ñetti waxtu. sport beeg Cheikh Tidiane Diagne Cheikh nu ngi lay nuyu. Ngom maa ngi lay fay. aywa ñu dal di ko door rek wàllu football ak CHAN bi di championnat d'Afrique des nations finaal bi nag ëllëg la ñu koy daal di amal ci bu 19 h jotee ci heure Ndakaaru diggante Sénégal ak Algérie mi ko organisé. Sénégal nag ci yoon googule duñ ci wet benn yoon donte am na yenn ci supporter deuxième gaynde yi nga xam te ba ndorteel tournoi bi léegi ña nga fa woon di leen jàppale joriñ yore wàllu tàggat yaram bi nag daal dina xam ne ni dana am itam yeneen i supporter yu fi bawoo ngir daal di kon bokk wéttali leen ci yoon googule Yankhoba Diattara daal di yëkkati yooyu la kàddu ci micro Oumou Kalsoum li gannaaw ba mu doon amal ay visite de chantier ci stade yi ci mel ni stade Léopold les lions locaux mën naa ni gàcce ngalaama macha allah ñu ngi leen di renouveler les félicitations du président de la république ndax wax na moom ni ma yaa ngi ko féliciter mo lions yi maa ngi leen di encourager donc premier match bi déjà contre la Côte d'Ivoire bi ñu ko gagné ci dama aussi waxoon aussi naa leen féliciter ma transmettre leen donc euh, les félicitations et les encouragements du chef de l'État donc du premier ministre Amadou Ba de l'ensemble des membres du gouvernement donc tey tamit yàlla def ñoom ñu dem ba final donc après onze années d'absence muy loo xam ni performance bi mag la ba tax na ñu ngi liggéey ak euh, le gouvernement pour xool nañ leen leen di gën a jàppale wax naa président de la fédération Augustin Senghor donc ñu ngi travailler pour xool sax na la ñuy renforcer donc euh, la communauté sénégalaise mooy le douzième Gaïndé ñu ne foofu di soutenir xale yi gis naa ni quand même le public algérien est un public très chaud donc ils sont très motivés derrière donc leur équipe donc il faut donc pas xale yi nekk xale yi il faut pas ñu wét. a euh, une équipe du deuxième gaynde qui est là-bas mais je pense qu'il faut quand même la renforcer donc loolu ñu ngi ciy liggéey ministre lu ñu ci mën pour vraiment jàppale xale yi les pousser à la victoire incha allah rabbi samedi prochain je pense que mérité nañu ñun ñu féliciter. Yankhoba Diattara di jëwriñ gu yore wàllu euh, tàggat yaram gi gaynde Sénégal yi nag na ma leen ko waxee ëllëg 19h30 seen digg ak ñi di waa Algérie ñoom itam ci yoon googule ñu ngay tàggatu bu baax a baax démb sax daal ñu amal ab séance d'entraînement foofule ci Alger ñu gis ni kii di Rémo Jéeme Ndour daal na dellu si waat ci équipe bi gannaaw gaañu gaañu bi nga xam te ne moo ko xañoon ñaari jongante yi nekkoon suñu kanam kii di Soda Thiam di suñu ndaw gu ñu yebal foofule ci Algérie dal na teewee googu la séance ñaar fukki gaynde ak benn ñoo bokkoon ca séance d'entraînement bu alxamis bi Raymond Jemendour ma nga woon ca biir waaye Eliman Cissé nag moom ba léegi ay exercice ci wet gi lay daal di def liggéey côté offensif bi loolu nag nañu gënoon a ràññee ci googule tàggatu mu ne woon vice champion avant chan bi Cheikhou Omar Ndiaye moom la ñu gis nag ni depuis ba compétition bi tàmbalee ba léegi muy takk brassard moom nag ci lu jëm ci final gi war a dox seen digganteeg Algérie maa ngi cay dalal xel yi. waaw match bu bés bu métti parce que euh, xam nañ ne match bi du yomb. en plus seen euh, dëkk la ñu nekk di jouer donc euh, lu nekk mën a xew si match bi. comme niñ ko yàgg di defee match yi passé voilà dañuy gën a yokk concentration bi voilà bañ a bañ a jël bañ a encaissé bañ a jël but et ñu gën a efficace voilà pare nañ pour euh, def lépp lu ñu mën pour yóbbu ndam li Sénégal incha allah. naataangoom bi lu ni mel itam la xam xamle moom Ousmane Marouf Kane yokk ci ne moom ak i naataangoom du ñu bàyyi xel supporters algériens yi. supporters moom ci kaw la ñun dañuy seetlu nekk ci suuf. loolu moo ñu ëppal importance mentalité bu ñu am ñun su ñoo nekkul ci kaw wala affaire yi ñu lu ci lu ñu war a def mooy si suuf loolu a am ñu war a def rek la ñu a def si suuf dugal na cinq bi mais tamit ak équipe yi mu ko dugal parce que aussi ñooy doog a compétition bi ñun daal pare nañ fépp daal pare nañ fépp nañ ñaan yàlla rek ba jour baa ñun ñëpp ñu nekk si jàmm incha allahu rabbi ñun xam nañ lu ñuy xaar bu baax a baax a baax ñun daal dañuy essayer ak Algérie daañu amal conférence de presse d'avant match niki aljuma ji bu 10h GMT jotee pour waa Algérie bu 10 h cinq jote ba tey heure Ndakaaru pour Sénégal Pape caw fas yéene ànd ak Moutaro Baldé mu ne woon Soda Thiam fii ci Alger ngir radio Futur Média. Soda Thiam kon bokk incha allah ci bu midi jotee itam jàpp 13h da ngeen mën a déglu réaction conférence de presse googu li nga xamante ni. dañu ko amal tey di ñaar équipe nga xam ne ñoo nar a final ëllëg diggante Sénégal ak Algérie ci bu 19h30 jotee di ngeen ko mën a déglu itam en direct fii nii ci radio Futur Média ni ki tey ji itam match troisième place wala euh, lii di match de classement da ngeen ko amal ni ki tey ji ci ngoon ci bu 19h jotee diggante Niger lay daal di doon ak ñi di waa Madagascar. sànq nag junjoon nañ ko di jëwriñ ju yore wàllu tàggat yaram bi euh, di euh, Yankhoba Diattara démb nag euh, ma nga doon amal ay visite de chantier la ko dalee stade bu ngoor jàppale Léopold Sédar Senghor ba ci stade bu Cambérène moom nag la mu xam ne moo di Léopold Sédar Senghor ci lu yàggul dara danañ ko daal di livré maanaam fii daanaka ñaari at ci kanam ñu dal di si ànd ak soxna Oumou Kalsoum lii nga xamante ne ma nga woon ca caravane Ngor di étape bu njëkk ci visitu ministre bi yore wàllum tàggat yaram fii nag stade municipal bi pare na ba noppi pelouse ba nag méngoog nag li ñuy laaj ci àdduna bi Birane Ndour nekk ci jiite olympique bu Ngor ma ngay rafetlu ci ni liggéey bi di avancé. tey bu yàlla defee la présidence de monsieur le ministre euh, ñu jox euh, stade bi mu ngi ñu sant ko euh, sant monsieur le maire ak équipe je pense que pour ñoom promesse la woon yàlla dimbali na leen ba tey def nañ ko. gannaaw état bu stade bu Ngor Yoff ñu ngi fii ci stade Léopold Sédar Senghor fii nag jëlu suuf yeeg gravats yi ñoom ñooy def décor bi ouvrier nag ña nga ca liggéey ba. chantier bi nag mën nañ koo xaar ci diirub fanweer ak ñaari weer. 32 mois la mooy euh, chef de projet bi jàpp na ni ci trente mois dinañu livrer projet bi mooy moo tax ñu ni dans vingt quatre mois incha allah rabi suñ fi ñëwaatee en principe day war a nekk pour ñu dem def réception travaux yi te loolu defe naa ni nekk na lu am solo. jëwriñ ji yore wàllum tàggat yaram ma ngay xam ne ni dina def kéem kattanam ngir rek fexe ba réewum Sénégal am ay jumtukaay yoo xamante ni dina mën di accueillir yenn joŋante yi Yankoba Diatara. stade Ablaye Wade mooy stade bi gën a moderne ci Afrique mais également li ñu engagé fii ci ko ci la jeunesse en 2026 avec tous les financements yi nga xam ne commencé nañ ko mobiliser on a déjà mobilisé 60 millions d'euros avec l'AFD donc le gouvernement Sénégal aussi am na yeneen financement ñu may mobiliser pour accompagner donc les JOJ Sénégal dina nekk dans les conditions pour pouvoir abriter n'importe quelle compétition délégation ministre bi nag ma ngay dem fële ca Cambérène ngir rek amal fa pose première pierre bu stade bërëb ba mu nekk ab jumtukaay boo xamante ni liggéey ba koppar gi ñu ci def toll na ci benn milliard ak juróom-ñeenti téeméeri million jeexital liggéey bi nag mën nañ koo xaarandi ñaar fukk ak ñeenti weer jërëjëf soxna Umu Kalsum lii ñu daal di waxtaanee wàllu football ci euh, terrain bi ak championnat bu Espagne démb nag dañ doon amal euh, benn euh, match retard si seen dix-septième journée Real Madrid moom mujj naa am ndam ci diggante ba ak Girona FC Valence 2 à 0. Asensio ak euh, Vinicius Junior ñoo jot a dugal nga ko lay jëngante nag ki nga xam te moo di Karim Benzema dafa jot a génn ndax gaañu gaañu euh, fi mu toll nii nag juróomi poñ moo daal dox ci diggante euh, ñii di waa FC Barcelone féetee ci place bu njëkk bi ak Real Madrid féetee si ñaareelu place bi. ci Italie foofu Juventus daal na qualifié demi-finale coupe nationale bi démb ñoom dañoo dal di am ndam seen digg ak ñi di waa AS Rome benn ball ci dara. ñu daal di wax itam euh, ci euh, championnat bu Angleterre seen vingt deuxième journée tey jii ci ngoon vingt heures lañ koy daal di door di jongante ko nara am solo euh, diggante Chelsea bu Kalidou Koulibaly ak Fulham Chelsea féetee ci fukkeel place bi waaye la ca bees moo di ñoom seen mercato ouvert hiver bi weesu waa Chelsea dañoo euh, jënd ay joueurs yu bëri sax ba tax na fi mu toll nii euh, loolu nag mooy curiosité bi tey jii ci ngoon ndax ñooñu li nga xam te moom la ñu séntu ci ñoom danañ ko daal di indi lu ci mënti am rek jàppale ni Chelsea fu mu féetee ci classement bi baaxul ndax ñu nga féetee ci dixième place ci classement bu championnat bu Angleterre. kon bokk euh, Barthélémy fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Cheikh.